Euh, merci. Euh, merci. Nous sommes euh, réunis cet après-midi pour euh, la remise des titres trois premiers gagnants du tirage au sort de notre jeu concours Qatar euh, Yonou Qatar, est organisé dans le cadre de la participation de notre équipe nationale de football à la Coupe du Monde Qatar 2022. en tant que partenaire, leader, sponsor, leader de notre équipe nationale A euh, pour euh, renforcer l'accompagnement qu'elle a toujours porté à cette équipe nationale, a décidé d'organiser euh, un jeu concours euh, avec euh, notre plateforme de jeu lonaz.bet, mais également notre jeu masse commune internationale Euh, que nous organisons avec la Française des Jeux et PMU. Ce jeu concours, euh, qui s'étale sur trois mois, euh, permet à nos parieurs de jouer à travers la plateforme ou les jeux physiques et de participer ainsi à un tirage au sort chaque mois. Euh, nous avons déjà tenu une importante conférence de presse pour le lancement de ce jeu concours il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, nous remettions les trois premiers tickets euh, à nos heureux gagnants qui sont au nombre de trois, comme vous l'avez suivi tout à l'heure. Et dans un mois, nu ferons également un deuxième tirage et en septembre, nu ferons un troisième tirage parce qu'au total, nous offrons huit tickets euh, à des Sénégalais, à des supporters, à des parieurs pour aller participer à la campagne Qatar 2022 et supporter l'équipe nationale de football. En plus des autres euh, offres que la LONAS fait pour accompagner notre équipe nationale au Qatar parce qu'il y aura beaucoup d'autres, euh, disons, supporters, participants ou personnalités que la va transporter euh, au Qatar pour soutenir euh, l'équipe nationale. Mais c'est ce jeu concours Euh, donc euh, fera naître huit gagnants que la LONAS va totalement prendre en charge. Quand je dis prendre en charge, c'est que la LONAS va leur offrir des tickets de transport par avion de Dakar à Doha, aller et retour. La LONAS va leur offrir également un hébergement dans des hôtels de très haut standing au Qatar pour toute la durée de la participation de l'équipe nationale de football du Sénégal. Donc au moins les trois premiers matchs de la poule. Et si nous continuons euh, au deuxième tour et ainsi de suite, et nous le souhaitons, la LONAS continuera à prendre en charge ces gagnants-là. En plus maintenant de l'hébergement à l'hôtel, il y a également les tickets d'entrée dans les stades. Ça également, c'est pris en charge. J'ajoute, tout ce qui concerne les frais de visa également son pris en charge. En réalité, Tout ce que nous demandons aux parieurs qui auront gagné, c'est d'avoir un passeport valide. Tout le reste est pris en charge par la LONAS depuis Dakar jusqu'à Doha et retour, y compris encore une fois les transports intérieurs par bus et tout ce qui s'ensuit. Donc pour nous, c'est un important moment d'échange que la LONAS euh, s'accorde avec ses parieurs qui sont nos clients euh, fidèles, qui nous font confiance, qui adoptent et apprécient tous les produits que la LONAS euh, lance et qui aujourd'hui ont, ont l'occasion, en plus de la LONAS, de montrer leur attachement à notre équipe nationale de football. C'est pour ça que je tiens, euh, à travers cette occasion, à féliciter les trois premiers gagnants, n'est-ce pas, euh, qui sont là, euh, à qui nous venons de remettre symboliquement les titres. Mais quand on parle de titres, c'est l'ensemble euh, des charges qui sont liées à leur, à transport de Dakar jusqu'au Qatar, l'entrée dans les stades, l'hébergement dans des hôtels de bon standing et le Et j'espère également les prochains le tout prochain aura dans un mois, vers le 19 août, et le dernier en septembre. Et encore une fois, ces trois premiers gagnants pour ce tirage, trois gagnants le, tirage et deux gagnants pour le dernier tirage du mois de septembre, ce qui fera 8. Donc nous espérons que nous aurons d'autres gagnants pour le prochain tirage qui aura lieu dans un mois et d'autres également pour le tirage qui aura lieu en septembre. Donc j'en appelle, disons, à l'intérêt de tous nos parieurs qu'ils euh, regardent ce que nous avons fait aujourd'hui, qu'ils sachent que c'est une opportunité qui leur est offerte, c'est une réalité. Vous avez vu que nous avons remis les titres de voyage et cela va continuer. Et Inch'Allah, nous permettrons à ces euh, supporters de l'équipe nationale de faire un très bon voyage, de rester dans un très bon cadre au Qatar et de bien accompagner notre équipe nationale de football. donc euh, tey dañu fi nekk pour euh, joxe ay titres de voyage et de séjour l'ONAS euh, il y quelques semaines dafa lancer li ñuy woowee yoonu Qatar yoonu Qatar soo gisee ñu lancer ko Sénégal dafa qualifié coupe du monde jël coupe d'Afrique qualifié coupe du monde te LONASE nekk sponsor leaderu équipe nationale football depuis plus de trente ans donc ren ñu ne comme suñu lions yi def nañ jaloore ñun tamit dinañ yokk ci liñ doon def organiser jeu concours bi tuddee ko yoonu Qatar maanaam ñi bëgg a dem Qatar jàppale suñu équipe nationale de football parce que am nañ supporter ni mu amee solo ci football ñu jox leen opportunité ñu jouer parier ci ay suñu ay jeu ñu def leen tirage au sort ñi ciy gagné ba mat huit personnes ñu mën leen jël yóbbu leen Qatar jeu yi nag ñaar la ci benn jeu bu ñuy tuddee masse commune international nga xam ne trent 34 pays ñoo booloo ak Sénégal di ko jouer masse bi am solo parieurs yi xam nañ li may wax mais am nañ tamit beneen plateforme bi nga xam ne Lonase moo ko moom mu tudd Lonase point bet mu nekk ay jeu en ligne donc nit ñi mën nañ dem si suñu kiosque yi joue masse commune international mun nañ toog seen kër yi tamit wala seen bureau yi jouer si téléphone portable wala ordinateur ci plateforme en ligne lonase.bet ñooñu suñu joué ba weer bi dee comme le 19 bi passé ñu def premier tirage bi ñu defee premier tirage ñetti ñi ñoo gagné ñoom ñetti ñi gagné ak ñi nga xam ne dans un mois dinañ def beneen tirage ci beneen weer ba ca topp ñu demaat beneen tirage mu nekk trois tirages au total ñu am huit gagnants ñooñu ñëpp li leen Lonase di yoreel mooy jox leen billet d'avion yóbbu leen Dakar ba Qatar ak dellu si mooy aller retour ensuite defal leen hébergement foofu Qatar ci ay hôtel yu mucc ayib pendant tout la période maanaam Sénégal euh, premier tour au moins Sénégal dina fa nekk pandant trois matchs lu mat lu ëpp dix jours donc loolu déjà jëlal neen jëlal nañ leen ko en charge su dee Sénégal dem na deuxième tour euh, l'ONAS dafay continuer di leen jël en charge ba fu mbir yi yem te yaakaar nañ ne Sénégal dina dem ba finaal donc prise en charge boobu à l'hôtel ñun ñoo koy assurer danañ leen fexe tamit di leen déplacer fu ñu bëgg a dem ci biir Qatar wala bu ñuy dugg stade ñun ñoo leen di jox ay ticket pour dugg ci biir stade bi ce pas fii balaa ñuy dem tamit loo xam ne c'est lié à des frais de visa wala toppatoo visa loolu ñun ñoo koy euh, assurer donc prise en charge c'est une prise en charge totale parieur bu ci nekk bu gagné li ñu lay laaj mooy passeport bu valide loolu rek lañ laaj donc ñi nga xam ne gagné nañu ñu ngi leen di félicité xam nañ ne ci un mois bii ñu def euh, plateforme bi ak masse commune bi gis nañu ay euh, parieurs yu bëree bëri di participer mais tirage au ñett la mën a génne ñett ñi lañ génne donc ñu ñu ngi encouragé ñi doon jouer ba fii ak ñi joué wul ñu profiter ci deux mois yi des pour parier pour bokk ci ñi non seulement mën nañ gagné. mais également mun nañ gagné fii nekk ci ñi nga xam ne dinañ bokk ci ñu yóbbu au Qatar donc loolu c'est un lap un appel que je xam naa ne tamit ñi nga xam ne gagné nañ tey dinañu def di bouche à oreille informer yeneen parieurs yi pour ñoom ñu intéressé u si bi parce que lii weddi gis bokk ci comme on dit gis ngeen ñu ngi joxe ay titres donc c'est une réalité te ñii dinañ am possibilité dem ba ànd ak suñu équipe ba Qatar toog foofu la le temps qu'il faut supporter suñu équipe nekk foofu Euh, maanaam mel ni ñu ngi seen biir famille Sénégal donc loolu laa amoon li may wax di encourager encore une fois ñii gagné di encourager ñeneen li nga xam ne yàgg nañu gagné pour ñu am loo xam ne ñëpp dinañ ci teg seen bët ba mu nekk également loo xam ne dina jig suñu équipe nationale ñu indi fii ndam ndam rëy. waaw ah, xanaa bëgg rek kontaan rek te li ma gën a souhaité mooy bu ñuy ñëw fii ñu indaale coupe du monde comme ni ñu indee coupe d'Afrique des nations. ñu souhait suñu vœu ñu ñu indaale coupe du monde fii loolu daal pour une première fois en Afrique mu am fii mu gane si Afrique ñu ngi ñaan daal suñu borom defal ñu loolu. man Ababacar Samb laa tudd. voilà justement noonu la loolu la suñu borom dogal bokk naa ci ñuy gagné tey maa ngi koy sante yàlla nag waaw ndax lu am rek suñu borom la fii la ko awale nag dama koy sant voilà. waaw comme ni boo joué rek dangay ngay enregistré sa ticket nga jox ko ñu am na des gens yoo xamante ni LONASE yebal na leen foofu ñu enregistré sa numéro soo au nga joué nga nga sa numéro comme ça léegi su fekkente ni tirage bi am na comme ni ko yàlla dogalee nii rek yàlla génne ñu ñu bokk ci. dama bëgg lool sant damaa sant yàlla de premier abord. votre nom. Euh, Ahmed Bon, après, bon, je vis sur la site LONAS, bon, euh, Qatar. Bon, il, il suffit que d'enregistrer ton nom et ton prénom avec le numéro de ton ticket et numéro de téléphone aussi. Bon, chaque jour, je continue à faire comme ça. le jour du tirage, après, on m'appelait que je suis parmi les gagnants. Bon, à ce moment-là, j'étais un peu surpris, après, je suis très content. Je m'appelle Mustapha Mamoud Diédiou. Euh, je suis parieur et je suis gagnant aussi au Qatar Et je profite euh, pour cette occasion de remercier la LONAS euh, pour cette, cette, cette, belle surprise euh, qu'ils fait. Parce que je n'ai jamais pensé euh, aller au Qatar et, et, suivre la Coupe du Monde. vraiment, je suis très content. J'encourage aussi les parieurs à aussi aussi parier pour en bénéficier comme moi.